kon bëree duñ ko. waaw dootul ko bëree yee ñaar. waaw waaw. wala amee beneen promoteur bu mën a taggaat combat. waaw promoteur ñu ngi ñuy woo ñu ngi ñuy woo. mais di leen wax ne léegi amoo aw ma combat aw ma dara. waaw ku ñëw rek pare pour signer suñu combat rek pare nañ pour bëre. waaw kon Ama daal pare na pour bëre pour mbër waaw pare naa pour mbër waaw. mais lan nga gis xam ne mooy 100 pour cent Kër Massar organisé Mbapat. boole ñoom seen biir kese gisee. wa wa kontaan li dafa rafet li dafa rafet ndax lamb dafa wara jogat fi keur Massar Malika wa wa li baxna torop torop wa ñu ngi si dal daal ñun ñëpp barke yal kontaan nañ ci ñun ñep wa ministre bi nga xam ne mooy Assome mo moom moo organisé lii ak sa wa 100 keur Massar la ngay wax yeen autorité yo xamne war lañ mëna jog pour jappalé yeen 100 keur Massar mbir yëpp. wa waaw di wo wa keur Massar Malika autorité yeb wa di wax nañ xol ci li quoi waaw. daa Absom ñu ngi kontaan ci moom xam nga ñu ngi dégg muy def ay affaire yu rafet waaw di ko gën a woo nag mu gën see jàpp rek waaw loolu lañ bëgg quoi waaw. kon jërëjëf amaa ñu ngi la ñu ngi lay bëgg bu baax a baax waa Yondem TV. waaw jaajëf jaajëf jaajëf. waaw gars yi kon ñu ko waxee. tey ñu ngi a benn sàmm yow mbër nootu. waaw bilaay Milkzo man la Milkzo. Milkzo Milkzo. ah Milkzo bu suuf moom tamit. waaw man man la waaw. ban nekk. fii Kër Massar mbooloo. mais Milkzo xanaa ren gis ren gis nañu sa combat. ren bëri trois combats. waaw bëri naa. yaakaar doon bëri. le 21 novembre bi laa mujj la mujj bëri combat jamaïcain yi. maa bëri spécial bi man a jeex jàmm. maa jeex jàmm mais sama tànk moo nee ñu def combat sans fil rek waaw mais instant yi ñu ngi ma dox maag Tapha Gueye numéro 2. Tapha Gueye numéro 2 ah, bu mag bi. waaw ñu ngi maa bu mag bi waaw. ñu ngi xam ne 100 pour cent Kër Massar ñu organisé li nga xam ne mooy mbapat bi nga xam ne moo am tey. waaw 100 pour cent Kër Massar lii dafa rafet dafa nekk une boo xam dafa rafet quoi xam ñu ñëpp ñu si kontaan bu ñu ko yëgee dañu see kontaan lii mos fi am ñoom ñu ñëw indi ko xam nga kon dañ ciy bu baax quoi di ko def gars yi lii fair play la rek yaa ngi comprendre dañuy foo bu ko defee pour neexal Kër Massar moo des ak 100 pour cent bi ñu def benn équipe def ko ñoom ñëw def ko parce que lii boo ñaaw ñoom rek seen biir ñu nekk fi di xeex du yoon ñun ñoo ko war a mën a rafetal ñoo ko tëgg ñoo ko war a mën a rafetal xam nga di ko nañ bàyyi mu tedd xam naatal ko quoi ñu xam ne bii laabee lañ fi woote ñun ñëpp benn lañ ku ñu daan ñu xam ni gënul fii ñun ñëpp benn lañ quoi waaw Mirguisso la lay wax supporter bi ñu koy xaar waaw sama supporter di wax ñu waajaar rek di bëgg Pape Demba sama coach sama ménageur sama lépp te di la bëgg di ñaan yàlla télé bi tamit ak 100 pour cent bi lépp lu ñu jëmbat rek yàlla kaw seen njor quoi. dina la ñëw seesi waxtaan ak yow. ok waa gars yi kon ki nga tey fii. tax ñu ko waxee tey ñu ngi daal Aliou Fat Fat waroon bëre combat le 26 ñu gis décembre ma gis gars yi renvoyé combat bi lan moo ko waral. waa gannaaw bañ sant yàlla jël si yonent bi sant si ñaari waajur. Mm. di sant waa Kër Massar yëpp nag waaw. waaw xam nga lii lii dafa rafet quoi. Mm. le 26 bi. Mm. la ñu waroon a bëre waaye instant le 16 janvier la ñuy bëre ñun. kan moo tëgg combat bi. combat bi waaw combat bi en ah, Pape Demba combat bi ko tëgg. combat moo ko tëgg waaw Dieye. le 16 janvier ban fan ngeen ko bëree. Iba Mar lañ koy bëree. kan mooy bëree grand combat bi. armée ambulance moo koy bëree. armée ambulance. waaw kon confirmé na quoi. waaw confirmé na waaw instant yii. lan la lan lan la waa Malika di xaase ak waa Kër Massar. waaw waa Malika ak Kër Massar li ñuy xaase man waaw victoire rek laa leen mën a fayee aw ma leneen lu ñu mën a lu dul victoire dañ ko namm si man. ci Seexul Xadim lu war sa lamb yëpp def nañ ko. ci même fu ñu dem dem nañ fa entraînement ñu def def nañ ko. di xaar yàlla di ñaan yàlla suñu borom nag mi ngi maye da koy ñaan suñu borom kàttan nañu may ñu ndam mafia yi. waaw mafia yi comme ni ko waxee rek. sa gars yi sareet yi. waaw borom sareet yi bàyyi ma fenn. waaw ah. borom sareet yi. ñëpp waa Malika montagne borom oto mbalit yi. bàyyi ma kenn sama booy yu may ànd mafia yi. Ah. waa sama booy ñëpp daal maa leen koy wax comme noonu ni ko doon jàppee ñu si comme noonu. Eh. waaw kon daal ñu xam Aliou la 15. janvier moo doy stade bi yëpp nag loolu laay ñaan yàlla comme nu mu ko daan defee. waaw tëj stade bi. dama maar man sa làmb dama see bokk. dëgg la dañ maa war a bàyyi. nga bokk parce yow da am nga mbooloo. waaw tamit gars yi la war a bàyyi xel bu baax. waaw dinaa nag open presse bi naka ñëpp ah. waaj. kañ waaw le 13. le 13 waaw le 13 fi ko doon defee rek. waaw comme fi ñu ko doon defee arrêt 75 bi ñëpp waaj ko. xam nga waaw waa 100 pour cent Kër Massar bi tam lii ñu def nii dafa rafet quoi waaw lii nii waru woon am sa ay xulu ay nekk di kii lii dafa ñaaw xam nga benn es bi ñu ñoo far lii yëpp benn dëkk bi la bu a lii day wan ne kon bëggante wu ñu quoi dëgg lii dafa rafet waa na gaa war ñu ko yàq waaw loolu la amoon la wax voilà di sant ñëpp nag di sant sama kësëb père Baba Maat père Diagne ñoom ñëpp di sant sama mag Pape Demba di la sant bu baax a baax waaw di ñaanal di la ñaanal yow sama mag yàlla la suñu borom kàttanal ba lépp lu nga sóob suñu borom jàppale la si. waaw waaw waaw jërëjëf waay jërëjëf waay merci Aliou